réclamé la clémence pour Birame Souleye tous les députés yi ñëw ci commission bi yëpp mhm. bi ñu nangoo ni Birame juum na mhm. parce que ñëpp nangu ñu juum na bi mu juumoo mi jéggalu ñu nag nañ dox jàmm ndax soo juumee ba nangu ni jéggalu nga pour man baisser nga les armes mhm. ñu waxu la ministre a été très sensible waaye dañu yemul rek ci Sénégal dafa laal beneen réew donc dimension yi moo toll foofu mais tous les députés yi jël kàddu moo demandé la clemence pour Birame ki est un de mesure qui a fait un écart de langage ki s'est excusé et tout le monde avait demandé du waay yeewu rek mais nag ku génn yaay wax mais li ma lay wax nii ku nekk ci commission bi tout tout le monde PDS wàllu yeewi Benno Bokk Yaakaar ba le ministre en personne que ni Oumar président commission la appelé dans ce cadre là ba ñu bëgg def délégation c'est le président de l'Assemblée nationale mm-hmm. pour ñu jéem ci dox jàmm pour que biram retrouve sa liberté mm-hmm. parce que sa place c'est pas en prison quoique aussi il faut dire à biram comme à Moussa à certains d'autres boo yore yenn responsabilité yi mm-hmm. dafa am loo xam ne nii war na la waru la mais nit bu juumee honnêtement jéggalu nangu ne juum na pour man amatul gisatuma man place. foofu le ministre il li ci wàlla moom c' est à ce pas à son niveau il est très sensible à ce qui se fait et li ni ñuy wax dégg na ko waaye yi fi yoon la mais nag c' une chose à prendre en compte. tout à fait par rapport a ça.